defe naa ni nekkinu Ousmane Sonko ci wetam man defe naa ni day rassure day dalal xel yi que euh, am nañu nguur goo xam ni du du nguuru benn nit kese nguur la boo xam ni fal nañu président bi wante ànd bi mu àndoon ak ñi mu àndoon ànd boobu deñul te nguur gi naru ko dindi parce que Sénégalais yi dañu tàmm wax ni diggante kiy laaj nguur ak li muy wax nit ñi bés bu jotee nguur li muy def su moytuwul leneen lay doon te loolu aussi war nañu ci bàyyi xel bu baax loolu bokk na ci li Sénégalais yi bañ defe naa bi fal président Bassirou Diomaye mm-hmm. defe naa acte bi mu jëkk def nii wane na ni. ànd bi mu àndoon ak président Sonko ànd boobu ba léegi moo am wane na ko ci kanamu ñëpp man loolu dama koy rafetlu dama koy rafetlu parce que su defee woon neneen defe naa ni xel dana ci ñaaw. te hmm. lan mooy ñu war a teg waaw kooku xam nga léegi euh, le deux fekkee le deux la. incha incha allah ñu installé le président Diomaye. léegi moom la constitution bi ñu yor jox sañ-sañ tabb ñëpp ñi nga xam ni ñoom lay àndal liggéey su su jëlee décision tab ci lañuy la ñuy xam ni ah président Ousmane Sonko de fii la ko tabb mais kenn mënul xalaat ci boppam parce que moom moo nekk xelam xam na fan la ko président Ousmane Sonko mun a gën a jëriñ donc ci foofu la koy tabb defe naa ne su tabbee gu su tabbee su ñu ko falee mu tabb à ce moment là ñun ñëpp danañu mun a def suñu analyse mm-hmm. xam fan la koy président Ousmane Sonko gën a jëriñ mm-hmm. mais déjà fii wane na ni ah ci ñu ko gën a jëriñ président Ousmane Sonko sûrement mooy ki ko nar a gën a jege mm-hmm. d'accord c'est important Abdoulaye Abdoul Khadr ma bàyyi la nga nga rebondir par rapport ak Abdoulaye Mbow ou bien professeur ou bien Cheikh Sadibou. oui certainement euh, balaa ñu ñëw si Cheikh Sadibou euh, peut-être euh, mm-hmm. doyen comme j'ai l'habitude de la euh, peut-être moom am na lecture bi lecture par rapport euh, mm-hmm. à la présence de Sonko. professeur wax na ko peut-être moo ko gën a jege mais aussi euh, Sonko Ousmane Sonko et en quelque sorte l'artisan de ce changement-là qui est mm-hmm. intervenu. ba am aboutissement wu élection wu mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. grâce à son choix mm-hmm. donc tey euh, présence am au-delà de ce que euh, a dit professeur euh, est-ce que mën nañ ci xalaat leneen lu gën a profond lu gën a sori loo xam ne mën nañu euh, informer renseigner ñu ci li ñuy xaar ëllëg dans la gouvernance de, du président Bassirou Diomaye Faye d'abord wax nga ko Ousmane dafa joxe boppam joxe boppam si li nga xam ne moo di euh, booy xool bu baax histoire politique au Sénégal. Mhm. li tax ñu bari yegsi wuñu fi ñu bëggoon yegsi mooy en réalité budul man su ma jiitewul rek kenn du jàll. Mhm. en 2012 mooy euh, l'année la plus récente en termes d'exemple. Mhm. dans le cadre de la coalition Benno Siggil Sénégal euh, dañoo jaay si diir bu yaatu lii nga xam mooy candidature de consensus et de l'unité jàpp naa ni leader yi nekkoon si Benno Siggil Sénégal yépp bu ñu doon dajee euh, kër euh, suñu suñu papa ndem si yàlla Amath Dansokho li Sénégalais yi doon xaar yépp mooy kan la ñuy jiital pour que Sénégalais topp seen ginnaaw. Mm-hmm. est-ce que président Moustapha Niasse la woon wala est-ce que président Ousmane Tanor Dieng la woon. je me rappelle que le premier juin. le premier juin. Mm-hmm. Euh, astafurlah le premier décembre. premier décembre bu ñuy génne la décision. 2011 donc 2011 1er décembre 2011. ñun ñi ngi nekkoon buntu kër Dansokho comme d'habitude di xaar. jour boobee ñun nii daanaka matin ba ñu daan ñëw 11h ba jàpp 18h ñu ngi doon xaar mais da nga daan gis sénégalais yi yoo xam ne dañoo ñëw gaari ci seen oto laaj ñu ñun taskatu ci xibaar yi alors fi gars yi toll. nga gis nit yu daagu ñëw ba foofu di ñu laaj fan la gars yi toll. mais bu ñu demee ba ñu ne tànn ñu ñas coow am na fa Serigne bay Thiam def déclaration ne dañuy lancer seen coalition. gis nga daanaka sénégalais yi dañoo wane si saa si benn déception. Mhm. déception boobu nag moo moo firndewu si résultat urne yi donc booy xool toujours y a ce problème là. Mhm. Euh, bi gën a yàgg en 2000 bu ñu demee ay élection quatre quatre vingt huit gagné woon quatre vingt treize gagné woon bu ñu yegsee 2000 ñi nga xam ne ñoo nekkoon daal la gauche sénégalaise. Mhm. dañoo toog waxtaan. mais comme ñun nag boo ba léegi ñu ngi perte. nañu dem jëli Abdoulaye wat jiital ko. bañ ko jiitalee sénégalais dañoo topp seen gannaaw jox leen kon Ousmane Sonko tey jii ne loolu loo andiwaat. loolu la mm-hmm. firndeel. donc dafay mel ni euh, si tànn gi mu tànn euh, Bassirou Diomaye ak euh, fi mu ko yegg fi mu yegg ak moom ak la ko jiitu sacrifice bu mu defoon si campagnal ñu bare yoo xam ne dañoo bëggoon nekk maire mu bàyyi léppam campagnal leen ba ñu supprimer liste bi mënoon na toog comme yenn leaders yi waaye defu ko dafa def campagne à l'échelle nationale pour véritablement jox chance la liste des suppléants yi nga xam ne man ak yow ñi si nekkoon ñu bari xamuñu leen woon. ay la yoon ba mu am balotage au niveau de l'Assemblée nationale. donc exemple la yoo xam ne nit ki en réalité dafa wane ni du jëmmam moo ko intéressé waaye li nga xam ne mooy la ñu teg comme programme comme projet ki ko ki ko ku ko mën a incarner baax na waaye tam bu mënee jiitu baax na bu mënul jiitu tam ñu seet ku ñu jiital. donc boo koy jàng dafa mel ni Sonko le colistier de Diomaye. comme ni nga koy gisee aux États-Unis entre le candidat mm. euh, euh, et son colistier euh, futur vice-président mm-hmm. comme nu ñu koy waxee même fi fekkee ni fii ce n'est pas mais dama jox exemple rek voilà pour wane ñaar ñooñu en réalité dañuy dem ba duñu leen mën a dissocier mm-hmm. du leen mën a dissocier si li nga xam ne mooy di ànd gi ñu ànd mm-hmm. wax ma nag si occupation fonction bi parce que au Sénégal système bi ñu am c'est le président de la République qui est élu donc élection boobu ñu ko def Ousmane Sonko nekk véritablement un protecteur te Diomaye wax ko wax ko firndeel ko lu yàgg wane ni c'est un grand frère si li nga xam mooy liggéey gi ñu bokkoon direction générale des impôts si taxawal syndicat ak la ñu sa xeexee ak moom ni ñu ko jiitale woon waaye tam mu ànd see ak ñoom àndu gu defe naa ni moom moom la ñu dëggal tey ba tax na fii ba ba ñuy installé Diomaye on verra toujours Sonko à ses côtés mm-hmm. les les gens diront oui Euh, daf ko war a nañ ko waxee te dafa war a effacé wu wala dafa war a nangam nangam mais écoute jusqu'au jusqu'au moment nous parlons Diomaye n'a pas encore n'est pas encore installé dans ses fonctions de président bés bu ñu ko installé ba mu nekk njiitu réew officiellement xëy na na ngay gisee Sonko xëy na dina gën a wan a wàññeeku solo li nga koy dénk wala boog li mu bëgg ñu jox ko mu yor ko jàpp naa ni bu mu si munti doon il sera comme ñoom professeur Marito comme ñeneen ñu nekk ci coalition bi ñoo xam ne dañuy xelal bu baax kii nga xam ne moo président parce que bu fekkee ni ñoom saa su ñu ngi rappelé wu ni la jiitu mooy l'intérêt collectif ak bokkoo gi ñu bokk jàpp naa ni euh, ñi bëgg créer déjà une dualité parce que quand même qu'on le ou non nous sommes au Sénégal avant même ñu dugg ci campagne certains ont voulu créer une dualité entre Sonko koy Diomaye te xam ngeen ko nitu borom altina yi moo ci jiitu xam nga borom altine yi moo di kan da du wax turam dafa guddi <laughs> ah bon ah oui borom altine yi nga xam ne yore journal lu ko neex bind. ah d' accord voilà waaw borom altine yi. <laughs> sax altine bu jotee rek mu am lu mu génnee. Uh-huh. te borom altine googu am na loo xam ne fexe woon na ko pour créer dualité non jaru ko xëy na Cheikh Sarr bu dina si ñëw waaw boo ñëwaatee keneen kii. bi nga xam ne moom dafa foogoon ni dafa nax dafa dafa mm. dafa mën a dafa sénégalais dañ ko topp alors que moom dem na ba xamul woon ni lépp lu muy wax moom kesee gëm boppam mm-hmm. lépp lu muy wax moom kesee gëm boppam te fàtte woon ni sénégalais gëmutuñ ko mm-hmm. parce que quand verse dans la manipulation manipulation ou outrance mm-hmm. te yow lañ nga wut du informé mooy mooy mais plutôt dangaa sol mbubbu propagandiste dugg si li nga xam mooy une forme de globalisation de l'information. defe naa ne ay la yewoon am na loo xam ne jiitu na si laata ñu leen di génne. junjun na ko ni yow xam nga ni ñaar ñi instant yi ni jubóowuñu dañoo am problème alors que c'était totalement faux.